tension sociale bi nga xam ne askan wi dañuy gaaw a pour un rien ñu génn ci mbedd mi le peuple est manipulé coono gi la ñuy wane ci mbedd mi lan la exactement. waaw wax nañ déjà léegi nii euh, facteur exogène yi ñun dañu nekkul benn dëkk bi nga xamante ne la xew ci monde bi yëpp daf ñuy épargner boo xoolee partout à travers le monde crise dafa am. les gens sont devenus bon avec la montée du populisme bien entendu mm-hmm. euh, li ñuy dund la ñeneen ak ñeneen di dund léegi le le problème c'est de plus discuter avec les populations plus les sensibiliser et par rapport aux tensions sociales dont on parle lan mooy tension sociale yi lan moo ko indi loolu tam il faut ñu taxaw wax si est-ce que nit ñi est-ce que askan wi dañu ne amuñu lu ñu lekk ne dañu génn amuñu lu ñu naan ne dañu génn ne jànguñu ne dañu génn amuñu courant ne dañu génn amuñu ndox ne dañu génn amuñu tali non chaque fois qu'on parle de cette tension politique que il y des responsables politiques qui ont maille à partir à la justice et qui se ñooy taxaw génn génn leen xeex leen ça aussi il faudrait aussi que l'on puisse poser ce problème-là sur la table mm-hmm. et arrêter de parler de tension politique tension politique tension sociale euh, est-ce qu'il y a pas derrière et de généraliser de dire les Sénégalais mm-hmm. yan Sénégalais man Sénégalais yu bëri dañ may interpeller di ma ne mais lii mooy lan ñun dañuy daan suñu doole ils sont contre parce qu'ils travaillent ils ont besoin de quiétude fu jàmm amul dara du fa ñëw wërsëg sax du egsi ñoom ils ont besoin de quiétude moo tax euh, le président de la république l'a répété il est là il nous faut préserver ces mesures de pour garantir la libre circulation des biens et des personnes. mais loolu est-ce lu ko jiitu taxaw ne l'État euh, restera fort euh, force restera à la loi yu mel noonu baax na c'est bien de le rappeler mais est-ce que amul lu ko jiitu loo xam ne peut-être dina euh, bañ a tax askan wi ressentir ce besoin de sortir pour manifester parce que boo seetloo ce qu'on constate mooy quand ils manifestent ñu si bëri ils s'attaquent aux biens publics wala aux biens privés yi nga xam ne dafa appartenir à des responsables du régime maanaam ils vous en veulent en mais c'est grave qu'on en parle comme ça ce qui s'est passé on peut prendre le cas de Ngor qu'est-ce qui s'est passé mhm. un responsable politique Farba Ngom maa ngi koy masaw oui loolu moo tax may wax attaqué këram ak ay cocktail Molotov c'est à condamner mais qu'est-ce qui a causé ça cocktail Molotov qu'est-ce qui a mhm. causé ça qu'est-ce qui peut le justifier rien du tout je suis d'accord avec vous qu'est-ce qui peut le justifier cocktail Molotov il faut qu'on se pose les véritables questions à qui profite le crime à quoi ressemble le, cri le criminel la ñuy wax bu ñu génnee wane ñu ne du dëgg yëf yaa ngi feeñ. un moment donné il faut qu'on se dise la vérité. Mhm. on ne peut pas être pris en otage par un groupuscule bu bëgg terroriser nit ñi. quand vous parlez du peuple les sénégalais man les sénégalais yi may waxal waxuñu ma loolu. les sénégalais li ñu li ñu may wax mooy ñun am nañu maturité démocratique fii ku fi nekk li nga bëgg ki nga bëgg votel di nga ko votel waaye en attendant fii ak il les uns mooy ceux qui vivent dans l'opulence ñi nga xam ne ils n'ont rien à se bon ils n'ont rien à craindre malgré yenn saa ñu attaqué justice yenn saa yi ñu attaqué nit dara ci fekk boo demee seen nga fekk fa xaalis bu bëri on entend des gens le dire est-ce que loolu mooy révolter les autres ñu may woowee les autres ba tax souvent ils pensent que le mal vient de de de celui qui est en face. je suis désolée il y a aucun pays au monde aucun pays au monde où a où tout le monde est égal amul. ci wàllum wërsëg bu yàlla di amul. mais politique bu gouvernement bi def pour nit ñi je pense que ci président book man li ma gis. Mhm. sama gëm-gëm mooy ci président yi fi jàll yëpp président Macky Sall amul kenn ku ko gën a am yërmande. ay mesures sociales yu am solo. ah oui loolu dañ ko ko war a nangul. président de la République au-delà de transformation structurelle de l'économie bi mu wax il a mis en place des programmes de filets sociaux ndax mënul ne ñeneen yi toog leen xaar ba li pare. dafa ne damay réduire inégalité les Sénégalais qui sont au creux de la vague jox leen ndox jox leen accès aux service sociaux de base donc kooku bu ñuy wax ay wax réduction inégalité foog naa ni c'est un mauvais procès bi koy defal que de dire que dafa am ay sénégalais yi am ak ay sénégalais yu ñàkk loolu tamit il faut ñu taxaw si léegi nag dañu nekk ci benn contexte bi nga xamante ne dafa am ñi nga xamante ne dañu dem fekk fi bës fi góom bi ne ñu bës ko. ça veut dire quoi. mooy exacerber gën a. utiliser meru askan wi. am utiliser utiliser meeru askan wi utiliser meeru askan wi euh, am lu ci jéem ko vraiment. Euh, man la di leen ma di leen manipuler mais moo tax loolu mooy li nga doon wax sànq lu tax ñuy ne force restera la loi parce que aussi sénégalais yi am na sénégalais am dañu bëgg loolu am na sénégalais yi ci ëpp dañu bëgg seen xel dal parce que réew ñun ñëpp charte réew moo ñu tënk lu ma mer mer. du ma ñëw taal sa kër. on entend souvent lu ma mer mer du ñëw toj sa kër. Mm-hmm, lu ma mer mer du la saaga lu ma mer mer du ma xaaw yi sa sutura. Euh, et au delà de ça bu ñu xoolee programme yi fi pré yi ñu fi teg programme xëyu ndaw ñi mu ngi fi ak euh, ñii di liggéey li que ce soit les fonctionnaires les augmentations de salaire. Mm-hmm. mais ay jéego. yu dul jeex ñu ngi koy def. loolu c'est le secteur formel taxu leen a bëri trop. le secteur mais ñu ñëw ci le secteur informel ñooñu ñoo gën a am ay jafe-jafe je pense bien. bu ñu ci le secteur informel le tissu économique du Sénégal il est ce qu'il est donc moo tax euh, orientation état bi c'est de pousser vers l'entrepreneuriat c'est d'ouvrir de mettre en place tout les tout le dispositif nécessaire pour que secteur privé bi mun ñëw. parce que parce que partout après est-ce pas parler d'échec si 11 ans après. partout euh, à travers mais ban dëkk nga gis mu amul chômage. ban dëkk nga gis bi nga xamante ne dañuy toog ak seen dàll ak seen ak seen tànk ne say. non pas ça mais boo xëyee wuti loo def indi sa kër. boo xëyee uti ngoon nga am loo indi sa kër mais loolu ñu jéego yooyu ñu ci ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey moo tax ñu gën a accompagner jeunes à travers la formation à travers le financement avec tous les instruments qui sont là bu ñu jëlee formation. 3FPT mu ngi fi bu ñu jëlee financement au delà des instruments bu ñu jëlee DER jël yeneen fonds yi nekk ci au niveau des des différents ministères avec tous les secteurs boo jëlee élevage boo jëlee pêche boo jëlee agriculture accompagnement acteurs yooyu yëpp état bi mu koy def lépp ñu koy waxee xëy ndar xëyul rek. Euh, sotti sotti mais ay jéego yu dul jeex ñu nekk di ko def.